بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk ñi leen nuyu nuyu islaam leen jaara di leen balu àq leen balu àq yàlla na yàlla nangu suñu ñaam yaam yépp yàlla nangu suñu jotaay bii tey ci jumaa ji boole ko jotaay yi yàlla di tagg ci arash kera yomal qiyam tey incha allah waxtaan wi ñu bëgg a def ay ci xiis fa anbiya maanaam yaa sama taala xam ngeen ni alquran bare na lu muy nekk la ay yonent yaakaar naa alquran képp koo jàng gis na ni yàlla sama taala yonent yu bari ñëw na ci ci alquran waaw Isaaya mu tudd yonent bi fii tudd ko feneen ku mel ni Moussa rek yaakaar naa lii tóob ñu ci alquran ëpp na téeméeri yoon Ibrahima taxu ñuy wax waaw yonent yooyu lu tax yàlla subhaanahu wa taala di maanaam di def yonent yooyu maanaam ban njariñ la am ban importance la am ci alquran xiisul anbiya maanaam nit ki def yonent yi lu tax yàlla ko ko def ak ci wàllu pédagogie lan la mën nan la mën a mën a jëriñ ñu ci jullit ñi waaw laaj yooyu la oustaz bëgg a tontu waaw lu tax lu tax maanaam ñuy nettali xiisu anbiya ci alquran ak yan njëriñ lañ mën a jëriñu ak ban ahamiya ban importance lañ mën a jëriñ ñun ñi nga xam ne ñoo koy déglu waaw kon incha allah du ma gudd dama koy bàyyi ñu jullu bu baax a baax incha allah mën nañ jëriñu oustaz fadal mashkuran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñuy jéem a dimbalante jéem a fàttalante ci limaada nadrus qisasul anbiya lan moo tax ñuy jàng histoire yonent yi seen jaar-jaar tomb la boo xam ne nag man ak yéen ñoo koy ànd def ndax fii laay tàmbalee léegi dellusiwaat fii loolu mooy ku nekk toog rek dinaa la laaj laaj bi limaada nadrus qisasul anbiya VIP lu tax ñuy jàng histoire yonent yi ngeen waaj maa ngi ñëw foofu laa jëm lu tax ñuy jàng histoire yonent yi bismillah ngir defal ko ci
mbokk yi ngay waxal de du man
ngir jàng ngir defal ko ci
dégg ngeen lu mu wax dégg ngeen ko est-ce que ñu ne dégguñu
dañuy jàng histoire yonent yi ngir ñu mën cee defal mën cee defal bismillah waaw dama ko gis mooy la yeneen saa soo la yàlla subhanahu wa taala waxoon na qad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waaw loolu laa jàpp ne xudwa boobu lay tekk la yonent yi di doon ci suñu kanam daal ay royuwaay yoo xam ne pour topp suñu borom bismillah man mi de loolu mooy suñu ngir dañuy roy ci ñoom
jàllaleel
yàlla bu ñu nettalee fis yonent yi alayhi salaatu wasalaam loolu pour ñuy delluwaat ci dellu ci ñoom comme ni mbokk mu tuddee léegi fis aaya bi wala ko rasul sallallahu alayhi wasallam d'accord mooy si yonent Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye jëmee rasul xam ne ñu ngi bàyyi ko ñu ngi bàyyi ko borom yàlla subhanahu donc yàlla bu ñuy wax seen i jaar-jaar dañ ci war a jàngee ne maanaam lu ci nekk ku ci nekk ak jaar-jaaram nga am jaar boo xam ne si moom lañ ko war a jàng pour jaamu ci borom bi yàlla.
bismillah
ñu am jàng jaar-jaar ci ñu am jàng jàng ci ñoom ba pare wane ne yonent yëpp maanaam misaal lañ si ñun
bul dem déedéet fii amul joxe ngaan ñëppay wax bismillah moom la ñuy déglu leen bokk xam naa ko xam naa ko wa alim affaire baa ngi jël temps de mu ni dégguma ko de mu ne ni ngir ñu defar sunu dund waaw bismillah yow lu mu wax nga wax pour ñu gindee ko waaleykum salaam wa rahmatullah
dégguñu de maanaam yonent yi yàlla yàlla yàlla daf leen a yar Mhm, xamal leen mhm.
kon ñoom ginnaaw yàlla yar na leen xamal leen kon dinañu jaar jaaruwaay boo xam ne bu baax kon fu mu ko yàlla nettalee ci alquran ñu yóbbati ko fi jàng seeni jaar jaar daf ñuy war a jubanti maanaam dañuy nekk suñu royuwaay daal fu mu ko jàngee pour ñu mën a jaar ci seeni jaar jaar jàpp Mhm, bismillah
li ma si jàngi woon aaya bi moo waral ñu war leen a jàng ñu tudd ñoo di mooy borom subhanahu wa taala day wax ne wala xam ne asnaa fi kulli ummati rasula an ya'budu llaha wa yajtanibu taagut Mhm.
mooy sama xeet Allah la lu loo sama bopp war leen a xam war a jàng seen bopp.
bismillah
am na si moom.
dé dégguñu de
لا يكون للناس على الله يكون على الله
loolu mooy
maanaam léegi lu tax yàlla dindi leen maanaam su su ñu leen di teel yow tax ñu am benn lay seen kaw.
bismillah déggoon nga laaj bi déggoon nga laaj bi waaw dégg naa laaj.
bismillah waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. maanaam suñu borom li tax mu ñuy wax ci histoire yonent yi dañu bëgg jaar-jaar yi nga xam ne jaar nañ ñun jullit yi bu ñu demee ba yegg foofu ñu teg suñu tànk ba ñu tegoon seen tànk ci wàllu muñ wàllu neex-neex yi leen doon dal ak nag lu métti yi leen doon dal ñu war koo mun a muñ war koo mun a jàmmarloo yu métti yooyu war koo mun a muñ ngir mun a jooxe li nga xam ne ñoom lañ ñu bàyyi ñun di alquran ak man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yonent bi Mhm, bismillah cheikhana waaleykum salaam dama koy nekk subhaanahu wa taala dëgëral ci suñu gëm am ñu xam ne du ñun rek la am nañu
Mhm,
histoire yonent yi comme niñ ko xamee commencé ci maam Adama xamante ni moo doon ki bidaayatul xalq la yàlla commencé woon bind euh, nit ba ci yonent yi nga xam ñoo jaar yëpp kenn ku ci nekk rek histoire euh, am na ñoo xamante ni ci ay métit ay jafe-jafe ay métit ki la leen yàlla yónni am ñoo xamante ni ci ñuy jubbanti ay nit kenn ku nekk ak façon ba nga xamante ni ci la la yàlla yónni woon loolu euh, yàlla dafa bëgg mu nekk njàngat ci ñun ah, ak delluwaay boo xamante ni kii toujours rek kenn ku nekk kii ci ñoom mën nañ joxe exemple ci koo xamante ni ay métit moo ko doon dal ko koo xamante ni ak am dem dañ ko doon xeex yooyu mooy li nga xamante ni moo composé suñu dund gi ñu dund taxawaay bu ñu taxaw rek war nañu mën a indi histoire benn yonente ni kii kat moom aw nitam lii lañ seqoon fii lañ jaaroon
barakallahu fiik bismillah
waaw moom day comme ni ko ñëpp wax rek yàlla ba ba mu ne bi mu waxee yonent dafa daa li mu teg mooy kazalika li sabita bihi fuaadak yonent xisa yooyu dama ko andi pour ma dëggal la ci yow yonent bi sa xol bi nga xam ni lépp loo tax dañ ci ay coona ah yonent yi la jiitu woon day lañ te ñun ñi nga xam ne dañu ne ci nag tool bi di di liggéey coono yi daj yëpp ñun yonent yi jiitu woon jot dañu ko kon bu ñu xoolee ci ci yonent yooyu du ñu tiit dañu xam ne yonent yi leen leen mën a mel. ah loolu dañuy ay gànnaay bu ko def njëriñ tax ñu te yonent yi.
ok barakallahu fikum incha allah su ko defee léegi kon danañ mën a fàttalante ci juróom-ñaari mbir ci waaw damay bañ ma may ragal ne du ñu wax du ñu mën a wax yu ñu dégg dama jéggal leen baal leen waaw. dinañ mën a jël juróom-ñaari tomb pour tontu laaj bi limaza nadrus qisasul anbiya lu tax ñuy jàng jaar jaaru yonent yi ndax jaar jaaru yonent yi jullit yi di ko teg seen kanam di ko càmbar di ci jàngat mbir yu bëri moo ci nekk ci yu am njëriñ yu am importance bi ci njëkk comme ni ngeen tontoo ñu bëri seeni tontu dana ñëwaat li anna allah amarana an naqtadi bihim yàlla moo nu sant nan leen roy roy mooy toppandoo jéem a dund ñoom nanu dunde woon ñoom yonent yi alayhimu salaam jéem a xeeñtu seen njub lan moo tax ñoom yàlla da leen a defar ba ñu baax ulaika alladina hada allah ñooñu ñooy ñi yàlla baaxal noonu la ko yàlla waxee ulaika alladina hada allah yàlla nee na ñii ñooy ñi ma baaxal comme dañoo baax nag fa bi hudaahum iqtadi ci seen mbaax jéema la baax comme ñoom borom xam-xam yi dañu ne jéem a toppandoo ku baax day tax nga baax tashabbahu in lam takunu mislahum jéem leen nuru nurulu ay nit su ngeen jéemee nuru nurulu ay nit da ngeen di jéem a mel ni ñoom gis nga tey waa ju yiw ju baax jullit am diine su toppandoo bandi sol tubéyu bandi sol mbubu bandi sol mbaxane bandi dugg ci jàkk saay-saay bi toppandoo ku baax sol yére yiw mbaxane mu yiw dugg jàkk ci élément tardé ñaar yi kan la ñuy jiital
bandi bi la ñuy jiital bandi bi la ñuy jiital lu tax ndax dafa toppandoo ñu baax ñi benn cheikh ci ulamaaw tabliir la bokk mu ngi tudd Yunus dafa yàgg France mais origine am Tunis la mais dafa yàgg France fa la gis sunna di fa daawalu tolloog ñeent fukki at boo ko gisee naar nga koy teg mais tubaab la dafa de bu nekk xale la nekk France da doon jàngale mu ne benn cheikh dafay jógee ci Pakistan di leen jàngal yonent bi mooy kan nu mu doon nu mu meloon nu doon sangoo nu mu doon soloo nu mu doon xeeñoo parfum nu mu doon tusngaloo nu mu doon solee yére nu muy kaalawoo su soloo ba génn lu muy yor ci loxoom nee na waa ji jàngal leen jàngal leen jàngal leen ba dafa mel ne yonent baa ngi ni taxaw seen kanam ñu koy gis mu ne benn àjjuma jot rek mu ne tey foog ma def li waa ji waxoon mu ne mu sangu ba pare diw tusngalu sotti yére mi parfum solu sol gilet amaamawu sol ay xuf sol dàllam jël yat mu ne mu génn jëm ci benn jumaa ci biir Paris mu ne mu romb benn ivrogne xam ngeen ivrogne mooy mandikat yu garaaw yooyu nga xam ne bu naaj bi tàngee sax bu ñu naanul dañuy mandi nee na mu romb waa ji rek waa ji di ko xool ba caag ne ko yaa Muhammad yaa Muhammad mu ne xool leen damaa nuru nuru Muhammad rek ñu jaxase maanaam bi ñu cheikh bi waxee loolu affaire bi marqué ma ma ñëw benn vendredi jën ma ne tey il faut ma def li cheikh bi waxoon ma def comme li cheikh bi wax sangu solu diw xeeñu parfum jiital yére bu weex teg ci gilet bu noir sol mbax ne bu noir amaamawu tus ngalu diw sama sikkim peñe ko bu sikkim bi di tàkk ma sol ay xuf ma dem juma en face notaire sapeur pompier yi jumaa ju mag jooju ñu julli ba pare ma bayaan rek benn waay ñëw ne ma doomu Muhammad ñaanal ma kon nga gis ne ndeke toppandoo ku baax day tax ñu yëgal la même boo fa bokkul inna tashabbuha bil karimi falahun jéem a toppandoo ñu baax day tax nga texe moo tax yàlla nenu nan jéem roy yonent yi nañ leen toppandoo laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawma al axir wa dakara allaha kasira loolu mooy tomb bu njëkk su ma paree damay laajaat tomb yi ñeneen mi dégg tomb bu njëkk mooy dañoo war a roy yonent yi xeeñtu leen jaar seen jaar-jaar ñaareel li ann xayaatu l ambiya hiya al xayaatu almaasuma min alzeyg walxata xusuusan fi ma yataallaq bi amri l aqida mbokk yi dund yonent yi mooy dund bu nga xam ne dañ koo aar dañ koo garder ba ndëng-ndëng ak caaxaan ak banditisme amu ci njuumte amu ci rawatina luy aju ci wàllu pas-pas ban yonent boobu bu ngeen jàng ñu ne yonent boobu de moom pas-pasam wérul woon yonent woon waaye pas-pasam wérul ban la kan la wax leen ma ko 124000 lañ woon 124000 25 lañ tudd ci Qur'an 25 lañ tudd ci Qur'an 25 yooyu ñu génn ci 5 muy ulul azm ulul azm yooyu ñu génn ci kenn muy Muhammad ñoom ñooñu ñëpp boo leen boolee amu ci kenn kuñ naan pas-pasam wérul wala dundam wala wala wala wala ndax seen dund yàlla da leen a aar ay maasuum lañ kon nag jéem a toppandoo ñooñu jéem a mel ni ñoom day tax nga baax ndax lañu gëm boo ko gëmee da ngay tere ndax dañoo gëm yàlla ba mu ne keng amul di amul amul arrière lu nit ñàng ñàng ñàng ñàng wala mu doy waar bu ñu yónnee woon ab yonent ci yow yonent bi bu ñëw du la faale du la gis parce que yàlla mi ko yónni lay gis moo tax seen dund mooy dund gu ñu aar ci ay jadd-jadd ci ay njuumte rawatina nag ci wàllu pas-pas xool leen tey xeet bi jullit yi seen pas-pas nu mu yàqoo lu ko waral mooy ñàkkoo jële ci yonent bi ñàkkoo jële ci yonent yi daanaka tey di nga digg loo xam ne sa yaram day daw wallaahi démb ci guddi dégg naa ay woy yoo xam ne maa ngi sama kër sama biir néeg maa ngi dégg benn haut-parleur di ma sànni ay woy yoo xam ne damaa yee sama soxna ne ko déglul woy yi woy yu doy waar ay jullit di ko way nga xam ne ñun alku nan dama sëy ak yonent bi dootuma fay dootuma tas xam ngeen ki wax loolu la ku góor muy waaye dama sëy ak nabi dama sëy ak nabi loolu way la est-ce que loolu ay way la dama sëy ak nabi giñ naa ne dootuma fay ma di lu way biir ak biti xaw ma ni lu may duru est-ce que loolu way la lu ñu doon wane tey nu ñu yàqoo ñun nu ñu yàqoo ñetteel mooy li anna fi dirasati xayaati al anbiya akbaru al iza akbarul iza li duaati ila allahi aza wa jal fahum uswa fi imanihim wa axlaaqihim wa sulukihim wa sabrihim ala al bala mu ne jàng histoire yonent yi def ci ay étude comme nii jàng seen dund mooy kéemtaan gi gën a rëy mooy expérience bi gën a ngand pour ñuy woote jëme ci yàlla xam ngeen lu tax tey ñun ñu am problème suñu woote yi parce que jaaruñu tànk yonent yi buñ jaaroon ci yoonu yonent yi kon weesu woon nañ fii bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ndax yoon woowu mooy yoonu yàlla tabaraka wa taala ñoom ñooy royukaay yi ci seen ngëm ñoom la ñu war a roy ci seen jikko ñoom la ñu war a roy ci seen comportement ñoom la ñu war a roy ci nu ñu doon muñe alal bala wa sabrihim alal bala amul yonent yi ngay jël ñoom ñëpp lu dul kenn ku nekk mën ngaa jël ci moom dara bu fekkee da ngay jël ngëm jëlal Moussa keroog ba ko Firawna sësee ci baxru Xalzum mer Rouge ñi mu àndaloon nga xam ne seen ngëm yàlla dëgërul ñu naan inna la mudrakuun Musaa daf leen xool ne leen kalla innama yu rabbi déedéet yàlla mi ngi ànd ak man wala imaan boobu kon dañ leen war a roy ci ngëm waaye ci jikko xoola yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam xoola jikkoom kan moo gën yonent bi jikko yàlla bi muy tàgg yonent bi foofu la ko foofu la ko tàggee wa innaka la ala xuluqin azim nga jël seen comportement ni nu meloon xoolal Yuusuf nga jël muñ xoola Ayub ci muñ balaa kon yow mi woote ci yoonu yàlla bu la yàlla tegee nattu yi nga xam-xam gu wér këng këng këng man kat am ndongo laa boo xam ne tegoon nañ ku ma gën natt bu mel nii te kooku bañ ko nattoo nangam bii la ci defoon moo tax mu génn moo tax gis nga yonent yi bi leen yàlla natt ñoom ñëpp kenn ku nekk yàlla bu ñuy nettali alquran natt yi buy fin yàlla yox inna kadhalika najzil muhsinin nii ma fayee yonent bi noonu laay fayee képp ku muñ ku rafetal ku jaar foofu du nekk rek yonent bi moo muñoon après yàlla fay ko jeex na keneen kenn déedéet ku jaar fi yonent bi jaaroon rek yàlla na ma jaar ak yow fi ma jaaroon ñeenteel an anna dirasa hayatahum tanfauna fi kulli zaman wa bi xaasa fi zamani al xurba alladi naisuhu l an mbokk yi li tax ñu war a jàng histoire yonent yi mooy jàng seen dund daf ñuy jëriñ jàng dund yonent yi daf ñuy jëriñ ci jamono ju nekk ci waxtu wu nekk waaw yow di yéex ngaa ñëw ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk rawatina nag ci jamono ji nga xam ne jamono tumuranke la jamono xurba jamono tumuranke soo jàngee histoire yonent yi nga gis nit ñi tumuranke woon ci seen woote yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ëllëg yowmal xiyaam bu yàlla dekkilee jaam ñi da ngay gis yonent bu ne cëpp du am nit du am ku mu àndal allahu akbar wala yonent boo xam dafa woote ba soon amul ku mu àndal moom kenn mooy waaxu cana cana ngi romb yàlla yàlla mu ne ko anam mbooloo mu ne man ba mu yónnee kenn wuyu wuma ñëpp a lànk yàlla mu ne ko demal xoolal nu alfu sanatin illa xamsina ama yàlla mu ne fa ma amana lahu illa qalil tuuti moo ko gëm tey dafa woote de daawtu qawmi laylan wa naharan woote naa guddi ak bëccëg summa inni aalantu lahum wa asrartu lahum israara woote lu feeñ woote lu nëbb yàlla mu ne junni at yu manqué juróom fukk waaye tuuti la am tuuti tuuti lu feesul gaal benn sëriñ benn sëriñ ñu ne ne sëriñ yi ay penalty rek la ñuy def mu ne oɗon gandi annabi nuuhu oɗon gandi annabi nuuhu ko allah nelimo kono ko dañno ko heewani laana mu ne yonent yàlla nuu yonent la wonde yàlla ko yonni waaye li mu am feesul gaal waaye cey diw li mu am kenn xamul lu mu doon cey diw li mu am kenn xamul nu mu toll léegi lu mu bëgg a wax Kapaare diw diw a gën diw a gën diw a gën.
kanko de ko dañi ko xeewaay xejaane dow leydi moom de li mu am xejul ci suuf léegi lu mu wax ah xajul suuf xajul.
te kii mooy yonent kii moom barki démb la judd loolu mooy lan xoolal loolu léegi nit ñi kan la ñuy roy te boobu jamono jooju waajaa ngi dee de mu ne kii tëdd fii nga xam ne léegi lañu pare suul ko ah attention de lim mënoon démb tey la ko gën a mën xoolal pas-pas yooyu ñuy yàq te lu garaaw mooy léegi lañ ko pare suul nit ñi ñoo ko sang ñoo ko sàng ñoo koy jullee ñoo gas pax bi ñoo ko ci dugal ñu ne allah waaw ñu ne mën na leen a dimbali ku ñëw mu dimbali leen wala loolu ñoom ñoo ko def de billaahi wallaahi taala noonu la ñu yàqee pas-pas yi di royloo nit ñi ñeneen ñu dul yonent yi ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax julli di yàqu julli xoolal li xoolal ñii ay julli lañ dëkk bi yëpp loolu la tey ñëpp ay julli lañ buñ feccee ba fajar ñu dem tëddi ana yi ana seeni ndey ana seeni baay fu ñu jëm waaw fan lañ jëm yal nañ yàlla sàmmal bopp mu ne dañoo war a roy yonent bi ci jamono bi ci jamono bi nga xam ne zamanul xurba jamono tumaranki xam ngeen ne tey dañoo tumaranki allahu akbar tey jullit moo tumaranki allahu akbar jullit moo tumaranki amul ndey amul baay barki démb dañ ma envoyé facebook sama page benn ci centre afrique benn jullit boo xam ne dañ dañ dafa ànd ak doomam ñu jàpp doom ji rey ko ba pare ne jullit bi lekk ko boo ko lekkul dañ lay rey mu lekk doom ji tiim ko di lagg di lekk yàpp bu ñorul ñu rey doom ji ci kanam ba pare ne ko lekk loolu fan la am ci àdduna bi ana waa droit de l'homme ñëpp ngi taxaw di xool di rey jullit ñi comme nu mu leen neexee centre Afrique centre Afrique bu ngeen xamoon lu fay xew billaahi bu ngeen tiimee ci lekk du ngeen lekk te kenn du wax dañuy sas dañuy rey jullit yi comme ñuy rëbb njombar di leen rey xam nga nu ñu leen di tuddee cadien loolu moo tax loolu moo tax cadde cadde waa Cad loolu moo tax waa France génne soldaaru Cad yi parce que soldaaru Cad yi dañ doon défendre jullit parce que ay musulman lañ kon ñu génne leen ñu roy yonent yi ndax dañuy tumuranke ci jamono tumuranke rawatina nag tey fi ñu nekk roy leen hatta najid qudwa nasiru ala hadiyiha linafuza bi nasrillah ñu roy yonent yi ci jamono tumaranke ci jamono balaa ci jamono métit bu ñu jaar seeni tànk ngir na leen yàlla dimbalee woon yàlla dimbali nu ngir na leen yàlla wottoo woon yàlla dimbali nu ngir ñu mën a am ndimbal ci kaw suuf loolu bokk na ci li mën a li war a tax ñuy roy yonent yi alayhi salaatu wasalaam jàng seeni histoire juróomeel anna qisasul anbiya alayhimu salaam tusabbit lil afida wa taamiqu lil aqida anna al aqiba lil muttaqin wa anna nasra wa anna nasra lil muminin وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين mbokk yi li tax ñuy jàng histoire yonent yi mooy ngir ñu mën a am dal tranquillité sabat ci sunu xel ci sunu pas-pas sa xel dal nga xam ne li ngay gis nii yëpp li ngay dégg ci jafe-jafe jullit yi partout dans le monde yow du la yëngal day tax nga gën a dal waaye sa xel dal ci sa pas-pas li nga gëm mooy dëgg yëngatu yu nga yenn saa yi nga xëy suba rek gis ay kaar ñëpp di yuux jëm benn barab bu fekkee ne amoo woon pas-pas bu dëgër da ngay jàpp ne li xumb lii ngay gis mooy dëgg waaye comme da ngaa jàng jaar-jaaru yonent yi xam seen pas-pas sa xel day dal nga xam ne yow li nga gëm mooy dëgg lii du la yëngal borom bi tabaraka wa taala mu nettali ne wa kullan naqussu alayka lii lépp maa ngi la koy nettali yow muhammad min ambai rusul ci xabaaru yonent ya yonent bi xam ngeen lu taxoon mu am sabaat dëgër kenn mënu ko yëngal parce que yàlla moo ko tegal yonent yi ci kanam ne ko ulaayika allazina hada allah fa bi hudaahum iqtadi yàlla ne ko wa kullan naqussu alayk min anbaai rusul ñii ma lay nettali ay information yu ma lay jox xabaar la yoo xam ne histoire yonent yi la lu tax maa nusabbitu bihi fuaadak pour ma dalal sa xel pour ma dëgëral ci sa pas-pas wa jaaka fi hadihi alxaq lii ma la indil mooy lii ma la nettali ci alquran bi mooy dëgg kon bu la dara yëngal lii ma la indil waar la fàttali la pour nga gëm borom bi tabaraka wa taala juróom benneel ann fi dirasati qisasu al anbiya maarifa tabiatu sira bayna alxaq wal baatil mbokk yi jàng histoire yonent yi daf ñuy dimbali ñu xam nature bi amoon ci kaw suuf diggante dëgg ak fen da ngay jàng yàlla tàmbali la histoire aadam ak iblis fan malaul aala balaa dara xew diggante iblis ak yàlla bëre bi fu mu mujj yàlla moo am dëgg moo wax dëgg moo am ndam nga wàcc di dem ba ki mujje chaque jour nga gis caaxaan ak dëgg ni ñuy xëccoo mais yenn saa yi caaxaan dana dem dem ba waa dëgg di di yëngatu waaye du tere rek dëgg moom mooy féete kaw alxaqu yaalu wala yu'la alayhi kon ndeke jàng histoire yonent yi daf lay nettali dëgg ak fen xëccoo bi ñu yàgg xëccoo lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg wa anna allaha yajalu nasra fi nihayati tariq li ahli lxaq lu mu yàgg yàgg yàgg yàlla da lay woon dëgg ne mbir mi lu mu métti métti métti métti waa dëgg rek ñoom ñooy féete kaw ñoom ñooy gañe kon boo jàngee lii lépp nga tënk ko nga boole ko da ngay gis ne kon musiba foog mu dal waa kaw suuf ndax dañoo teggi yoon waaw di ñu xoolloo ñu ñu xoolloowul ba ci ay mbax na mbax na wala mun boo génnee Sénégal mun ngaa bañ a laaj da ngay xool kii xam ne waa kër diw la ndax mbaxane bi nga xool kii xam ne waa kër diw la ndax mbaxane bi wala ki nga ñëw voilà noonu nga koy xamee ci kurus yi noonu nga koy xamee ci yére yi dafa am benn paa dafa sol ba pare rek gars yi ne ko ah kii de yaa ngi niroog benn seexu murid rek mu ne yàlla tere yàlla tere mbaxana mi dootuma ko solati aramal naa ko aramal naa mbaxana mi ah lu xew parce que nee nañ ko mbaxana mi mbaxana moomu la rek mu sànni ko mu ne aramal naa ko gis nga mu ne doot ko sol mu noonu la ko noonu la ko bàyyi ñibbi bopp neen ne lu tax ñu koy adressé foofu moom bëggul foofu mais mbaxana yi dafa am ñu ñu ko moom am ñu moom kurus yi am ñu moom bolog yi yëre yi yëre yi yëri yëri am ñu moom kaala yi am ñu moom am ñu moom am ñu moom ba ci laa ilaha illallah bokku nun bokk ñu ñun ba nuñ koy woyee mun naa fee indi juróomi laa ilaha illallah yu bokk yéen ñëpp ngeen seede ko am na xëy ñoo ñal la xam ngeen ko am na laa ilaha illallah am na am na ala ila kenn bokkul am na laa ilaaha illallah ku nekk ak sa bos da ngaa bañ nga wax bii ñu ne la moom ñii de ñoom diw la laa ilaaha illallah kan ma ko moom ba ku nekk ut sa bos fu ñu jëm moo tax du dem parce que dañoo bàyyi fi ñu waroon jaar jaar loolu fu ñu jaarul loolu rek mooy suñu problème juróom-ñaareel te bi ñuy jeexal anna dirasa qisasul anbiya wa maarifatul axbaar hum tajalna nasdaadu xubban lahum suñ jàngee histoire yonent yi jàng seeni xabaar daf ñuy def ñun ñu dollee ko bëgg leen wa raxbatan an nakuna fi suhbatihim dañuy xemmem aussi nekk seeni àndandoo nekk seeni farandoo saxaaba yi bañ gisee yonent bi kese mooy toog seen kanam di wax di leen won yonent yi muñ def dañoo xëy rek jaar noonu ñoom ñëpp ñoom ñëpp bëgg a mel ni ñoom kon ñun bu ñu leen nettalee ñooñu ñun day tax ñu bëgg leen ñu dollee ku bëgg leen waaye bu nu wàññeekoo tey comme ni ñu wàññeekoo nii ku nekk am kuñ la xoolloo ku nekk am kër guñ la bokkloo ku nekk am fuñ la yemloo loolu day tax suñu liggéey freiné loolu day tax suñu woote du dem loolu day tax duñu ànd loolu day tax duñu bokk pas-pas duñu bëggante te loolu yëpp bu amee sunu njullit du wér kon ki jiite woon jotaay bi xamal na ma ne waxtu wi jeex na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.